accident yi jamono yi def daal di wëlee ñaay euh, chaque fois damay faral di wax ne accident yi nga xam ne moom la ñu mën a xam mooy ñu am télé ak rajo mooy gën a siiw am na ñoo xam ne amuñu télé amuñu rajo et chaque fois ñu am accident. accident nag nee la njeexital la njeexital boo xam ne euh, dafa fu mu tàmbalee fa mu tàmbalee mooy que lan euh, waxoon nañ leen jamono passé jamono tali yi tali yi jafe-jafe la. ñune signalisation yi jafe-jafe la way ñune les pièces de rechange jafe-jafe la mais ñune également ñak jëfëndiko li nga xamné mom la code de la route santané benen jafe-jafe gi nonu li code de la route santané moy que suma sonné na sonnee suma dawal na tak ceinture de sécurité na def visite technique mais également na xol état pneu yi na xol na xol loolu ay mbir yo xamné ne la tant nit ñi ñu ngi koy farale di ko ñàkk jox ité jafe-jafe lay am accident bi nga xamné premier ministre mom la féké éclatement pneu la loolu lay kon auto bi lañ don daw excès de vitesse la éclatement pneu également day pneu yi méngawul ak yamono té pneu yi ay pneu importé la kon jonne na fi mu ñu jublu ci xolaat ñi nga xamné ne ñoo yëngatu ci walu importation puis pièces de rechange ñu ne leen nañuy indi lu mengok suñu réalité ndax ñun réew mo xamné la amna na zone dañu am xorom am yenn zone dañu am ban am yenn zone yu xam ku ak spécialité am la kon noonu fexé ba réalité yi zone yi nañ ci tënk mu di importer ay pièces de rechange auto yi magati également nañ leen a ci kaw talib bi yóbbu leen ndax tamit loolu beneen jafe-jafe la waaye nañu noppal de surtout jamono nga lool nañu moytu également tamit territoriale Le nguur gi ci kaw tali bi programme lampadaire solaire li fu a jublu mooy leeral kaw tali bi amaana tali bu aussi jafe-jafe la respect du code de la route le respect du code de la route day indi ak salam ci kaw tali bi waye ngay gis sax tourner à gauche à droite doubler deug neex la kon nga Sénégal jël code de la route est koy appliquer dans tout sa rigueur code de la route tant que wuñ ko nit dañuy voilà ñi ngi le ministre des transports terrestres infrastructure désenclavement transport aérien que mesure bi mu teggi tekk dar yi nga xam ñoo nekkoon sur le corridor Dakar Bamako mesure bu bon la mesure bu baaxul la mesure bu ñu war a xoolaat la ndax mënu comprendre un pays comme le Sénégal ñi ko wër ñëpp dañoo am jafe-jafe ci wàllu sécurité boo jëlee euh, Mali jafe-jafe la. Niger Burkina ñoo ñëpp dañu am ay jafe-jafe ci wàllub insécurité takk der yi nga xam ne ñooy contrôler les corridors Dakar Bamako nga yeewu benn bés ak ne leen jóge leen ci kaw tali bi loolu cavalier de la sécurité am nañ ci tiit ak jàkkare moo tax ñuy oo El Malick Ndiaye di oo le premier ministre mais ainsi que président de la République Bassirou Diomaye nekk mesure boobu mesure ostentatoire la discriminatoire la nañ ko xool te wóor solo fan yëpp takk der yi muy euh, douane yi ñu bu am solo di jàpp dorog waaye jàpp dorog boobu douane yi mooy njeexital waaye am na fu mu tàmbalee kon avons le contrôle sur la voie routière, autoroutier dafa nous lo xamné priorité la kon ñu wax gouvernement bu Sénégal ne ci gannaaw ci mesure nga xamné jël na muy mesure bi nga ci kaw corridor Dakar Bamako danger la danger bobu kat ci dans un contexte bo xamné sécuritaire trafic d'organes, trafic de drogue trafic d'être humain.

mooy yëkkati FDS yi ci kaw tali bi mesure bu bon la surtout FDS yi nekk ci corridor Dakar Bamako